ndongo daara yi nga xam ne nii mën nañ ne euh, fanweeri at ci gannaaw ne ñoom laa meloon di wax rek ne fii ma taxaw di jaayante ci suufu garab gi <coughs> la yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laqad radiyallahu anil mu'minina is kon tey maa ngi jaayante ak waa Sénégal yëpp ci garab gii nekk sama buntu kër leneen damaa fas yéene yëkkati réew mi fexe nag ba nga xam ne nii ñii taxaw nga xam ne nii dañuy ay dongol daara fexe ba nga xam ne nii coono yi nekk dana deñ muy intérêt Sénégal ndax tey sénégalais bu ne war ngaa mën a jàng sa alxuraan jàng sa diine jàng sa làkk bi nga bi nga moom jàng làkku tubaab bi jàng làkku anglais bi ba nga xam ne nii buñ ne lee kaay mu doom nga man ko def buñ ne lee kaay jiite nga jiite foofu la Sénégal toll Sénégal tollu ci benn dëkk la boo xam ne nii dañ naan ñun waa daara yi rek ñoo fi war a nekk wala ñun ñi nga xam ne nii ñun la tubaab bi teg ñoo fi war a nekk waaye nag am nañ exemple ne tubaab yi nag ñi nga xam ne nii moom lañ jëloon doon na ko ba léegi defaguñ résultat looloo tax nag pour ñu def ko il faut que ñu jël piliers yi nga xam ne nii moo ëpp doole ci mi ñu defaraat ko bi ci jiitu mooy defar assemblée nationale ba mu nekk assemblée du peuple du nekkati assemblée parti ndax ñëpp amoon nañ yaakaar ci assemblée bi waaye partisan moo tax assemblée bi na mu waroon a liggéey liggéeyu ko ñu fexe ba assemblée bi nekk ñu lay fale ci département bi dindi liste nationale dooleel député yi bañ mën a di dis di diisoo ak askan wi fexe tamit ba créer ah, ah, haute autorité de la justice pour que ñoom ñi nga xam ne ni ñoom ñu am cadre bu baax boo xam ne danañ am seen autonomie comme bi assemblée dem di mën a def seen lépp duñ dépendre ci exécutif yi bu boobaa dana tax ñu gën a mën a doxal justice buñ paree tamit ñu defar ah, conseil supérieur des cultes et religieux mooy cadre kaddu diine ji ba nga xam ne nii ak diine yëpp ba nga xam ne danañ am ñoom tamit ñu leen di laaj ci xalaat yi nga xam ne nii moom lañ mën a doxalee réew mi. buñ paree tamit ñu defar économie bi niñ koy defaree mooy wutal ko institution bu dëgër muy chambre consulaire yi ëmb organisation yi baykat yi sàmmkat yi nappkat yi ak artisan yi ak industrie yu mag yi ak yu ndaw yi ak képp kuy def transformation ak ñu nekk diaspora te ba ñu liggéey ci réew te bëgg a liggéey ci réew mi defaraat parti politique yi nag ba mu nekk parti politique boo xam ne ni day contribuer ci luy développer ci réew mi te bañ a nekk ay partisans loolu laa leen di wax fii incha allah fii suba danaa génnewaat li nga xam ne nii moo nekk ci programme bi jëm ci decentralisation ak ni ñuy taxawaale gouvernement bi man maa ngi leen di gërëm di leen sant yokk ba yëkkoo tool bi yokku ba yëkkoo daara ji tool bi pénc bi jërë ngeen ñëpp wasalaamaaleykum